moom am na naqar damaa ne yoonu mbir yëpp amoon naqar nag ci taalib sëñ Bamba boo xam ne bu wóor la woon bu naa ngi kii taalib sëñ Bamba la boo toogee mu baxee moom da xam ne taalib sëñ Bamba ko waxal gëm sëñ ah, bi ma njëkkee toog moom restaurant lu ma njëkk wax mooy sëñ Tuuba la te bëgguma gis lenn loo xam ne lu ñu ci njabootu sëñ daa bëgg nga gën maa sàmm sa diggante ak sa ngor boobu ma dégg ci yow leen si parti loo xam lu lu lay xeebal nekkoon sama xarit privé nag sama xarit lool lool lool lool déwén toog fukki fan yoo xam ne ñett fan yu wax téléphone ñun ñaar da mën naa ne jamono nekk feer bi rek wax nañ ci message moo xam ne message bu daw yaram loo xam ne man ak moom ak yàlla dama koy ñaan nag ci barke Serigne Touba mu xatoon sama waajur nag lool lool lool am fa mu ko teg ndax fii kër gi moo ñu boole maanaam politique boole bu ñu dafa yaakaar sama maam yaroo ci kër gi parce que sama bu jël moo yor yaayam di ko ñaan ci bàkk Sëriñ Bamba fi mu jëm yàlla na ko dàq fi mu jóge